tey jii ñu xamaleen leen ak doomu Sénégal bi nga xam ne euh, gone gu ndaw la nekk ci réewum itali di fa doxal ci football ñu indi nag ay image yoo xam ne daf koy confirmer bu ngeen xoolee gone gi li muy doxal ci wàllu football nga xam ni gone la goo xam ne gu ndaw la ma ngay nekk ci euh, défense ba ca côté càmmoñ ga nga xam ni càmmoñ ba kenn du ko laal moom moomu sol numéro 4 bi di doxal la muy xëcc cay bal ak la muy def ca Jóob ak Njaay organisation défense bi lépp da koy teg ci axe ba lépp tolloo moom mi nga xam ne mi ngi judd fanweeri fan ci weeru novembre ci atum 2000 atum 2002 fukki at ak juróom-ñett ginnaaw bi tolluwaayam mi ngi nekk ci 1 mètre virgule 85 juróom-ñaar fukki kilo ak juróom lay posé muy wane ni gone la bu am avenir boo xam ni Aliou Cissé koy may bët ak ñi mu àndal waaye ñee waa Thiès ñi nga xam ni ñoom it danoo rafle woon euh, footballkat boo xam ne gona lay doon am xarañ ta la muy def mu am ca fulla fayda loolee Thiès jooyatu ko ndax am na ko kon des lu dul maanaam ngeen bàyyi ko xel bàyyi xel googu nga xam ne dina jàkkaarloog Aladji Malick TV bu subaak jàmm bu 17h jotee en direct même ci compte Instagram bi nga xam ne moom moo ko moomal bopp kont ba euh, Moustapha Ndoye ca ne bu ngeen ca demee di ngeen seetaan émission bi en direct même bu émission bi jeexee di ngeen a topp li xam ne moom lay yëngu lépp ñu bàyyi ko xel